Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nang ni noo ngi nuyu mbokk yëpp di leen jéggalu tey naan suñu borom bo ñu jéggal dellu si nañ di len fàttali naafila yi sëriñ Sooy Mbàkke radiyallaahu anhu digle ngir ñu di ko def ci guddi weeru koor tey nag noo ngi toll ci guddik fukkeel gi du fukkeel gi sëriñ Sooy Mbàkke radiyallaahu anhu nee na ku ca julli ñeenti rakkaa rakkaam bu ci nekk gannaaw fatiha ayatul kursi benn yoon inna anzalnaa fukki yoon ak ñaar ñoomtaat ko ñeent rakkaam lay doon kon ñaari sëlma rek lay doon rakkaam bu ci nekk gannaaw fatiha ayatul kursi yi benn yoon inna anzalnaahu fukk yoon ak ñaar mu ne ko ko def balaa moo jóge fa mu ko doon jullee des na ko jéggal bàkkaaram yu njëkk ya ak yu mujj ya des na ko bindal itam tuyaabay juróom fukki nit ñi way dëkkal yi ak tuyaabay juróom ñaar fukki nit ñu dee ci jihaat te balaa moo génn àddina dana mos lu bokk ci meññiti àjjana waaye itam des na ko ràmmloo juróom ñaar fukki nit ñoo xam ni sa war a yoyoo na leen loolu moo nekkoon naafila gi sëriñ Cheikh Mbacké radiyallaahu anhu digle ñu di ko def ci guddi weeru koor yi tey nag ñu tolloon ci guddi fukkeel gi ñoo ngi ñaan yàlla mu defal ñoo jàppandal ba weer wi ñu woore ko ni mu ko bëggee te yi wi ci nekk yëpp mu defal na ko te fulal na ko ñu ngi jégalu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullaahi